salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi di leen lu Lukaar ñu ngi fi nga xam ne ne mooy diwaanu euh, Tëngéej ba tey ñu desandi di fas ne waxtaan lu jëm ci actualité actualité nag bu ñu ko waxee ëmb na lu bëri reportage bi si wàllu actualité la donc nag damay euh, fas yéene tàmbalee li nga xam ne mooy reportage bi euh, gars yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy yéen ñi nga xam ne yéen ay abonné nga xam ne ne yéen seen jëm bopp yéen a bëgg li nga xam ne mooy Kër Ndaanaan TV ci kaw loolu damay jaare foofu rek dugal benn fas yéene wóoraat parce que actualité non dafa war dañ ko war a dafa war a saf sàpp ci Sénégal nit ñi xam li xew ci dëkk bi ni ñi wax seen avis ni ñi wax seen xalaat concernant li jëm ci dëkk bi euh, damay jaaree foofu dugal sawaay maa ngi ko gis mu nekk si téléphone sëñ bi na def. waaw maa ngi fi rek sa waay. waaye ngi am jàmm ñu ngi ci sant bu baax. Euh, tur bi nan la. Euh, président Maguette Sène. Maguette Sène président wu lan nga. président des jeunes leaders pour le développement de Rufisque. d' ñu ngi lay jaajëfal. waaye maa ngi leen di jaajëfal baax di nuyu waa Kër Ndanane TV bu baax a baax. nan nga mën a wax nan nga gisee situation dëkk bi actuellement situation dëkk bi actuellement ñu gis ne ne Macky Sall reporté na élection yi en même temps tamit gis nañ fan yii passé manifestation yi ni mu wulee ñaay si dëkk bi lan nga ci mën wax. waaw bon du nuyu ñëpp ah, di nuyu waa département bi di gis na dëkk bi jamono ji dafa naqari naqari goo xamante ni depuis bi ñu reporté élection yi bien vrai que xol yi benn neexul benn en commençant par moi. en tant que un Sénégalais en tant que un citoyen li ma ciy wax mooy que ne xanaa au jeunesse bi ñu gën leen a sensibiliser ñu def très attention appel à le président de la république mu jéem a saytuwaat xoolaat affaire bu baax a baax parce que Sénégal réewum jàmm la. te ay nag du yem ci bopp boroom. d'accord parce que actuellement boo xoolee dara doxul. dara doxul non dara doxul. xanaa dem ci banque yi ñu ne la liggéeyuñu. d'accord boo gisee tey suba nee na journée morte la. hôpital yi démb j'ai eu des des des cas yoo xam te nii hôpital bu ñu ñu ne dañ grève clinique Naby la leen mujjee indi. est que ñoom wax nañ motif bi tax ñuy grève. non wax nañ motif bi ne ne ne dëkk bi moo naqari ak ak repousse élection yi nous sommes dans un pays démocratie nekkuñu dans un pays dictature quand même. ñu gis ne ne fi ñu toll nii ndaw ñi sax ñu àdduna man parti bi laa bokk muy parti bi nga xam ne ne mooy euh, opposition bi ku ne opposition la tëj wala mais loolu moom dama koy ñaawlu bu baax a baax. Mm. parce que tamit bon boo xoolee président de la république bi mu fi nekkee opposant comprendre dañ ko bàyyi mu dem ak démocratie. pas doole crasse. comprendre mais gisuma ne tey jii nekk opposant boo nee nii ñu tëj la man je suis pas d' accord parce que nous sommes pays démocratique quoi yi nee nañ dañoo war a bàyyi président Macky Sall mu continuer madame parce que Macky ñu bàyyi ko mu toog ci dëkk bi parce que fi mu toll nii Macky Sall liggéey na fi ay solo loolu la ma waaw xam nga tey jii kenn du wax ne président liggéeyul. kenn du wax ne kenn du wax ne président euh, Macky Sall liggéeyul il a travaillé te man su ma sañoon mu génn par la grande porte. d'accord parce que liggéey na fi liggéey boo xam te maara day taale. du dëgg mënoo toog liggéey bu liggéey bu heure bi tey jii nga bëgg a yàq si loo xamante ni kenn xamu ko ci ay affaire problème de constitution man pour man lool loolu mooy genre parce que man ndaw laa woon APR. ah ndawal APR man ndawal APR laa woon mais je suis pas content. lan moo tax content lan lay doxalee. ça c'est pas c'est pas du démocratie. lii du démocratie kon yow da nga jàpp ne en ndawul APR Macky Sall si jëm boobu daa war a bàyyi. non il est temps mu cédé mu euh, ñun dañu koy euh, euh, organiser des élections libres et transparentes. ñu moom daanaka moom la jiital wala gisoo lool. waaw moom la jiital. Uh-huh. Amadou Ba mooy choix am. d'à peu près si li ñun ñëpp ko gisandoo. mais Amadou Ba mooy choix moom nangul bàyyi. waaw mais moo tax moo tax ñun tamit ñu koy woo pour mu cédé. d'accord di ñaan tamit kilifa diine ñëpp képp ku su mën a wax ñu toog waxtaane ko parce que ay du yem su bopp borom. d'accord ñu ngi lay jaajëfal. ok jërëjëf waay. kontaan nañ ci yow soxna si soxna si pardon pardon soxna Adja pardon kaay daw si gaaw kaay jàpp ma jàppal ma yow jàppal ma eh jàppal mu eh, ma sama eh, na nga def. fi. mbaa ngi si jàmm. sant rek kay. naka yite yi. waaw yite yaa ngi nii rek alhamdulilah. Eh, tur bi nan la. man Assane Fall. Assane ñu gis ne situation dëkk bi euh, métti na trop ñu gis ne ne euh, fi mu toll nii euh, politique bi nekk na politique boo xam ne politique bu métti la nit ñi fi mu toll nii élection yi aj dañ ko loo ci wax. waaw loolu Macky Sall daa doyluwul rek. Macky Sall daa doyluwul. waaw parce que moo tax ne Macky Sall doyluwul. non ko wane si réew mi quoi parce que nit ki li nga wane loolu la ñuy gis si yow. d'accord lan la la wan yow. man lim ma woon dafa bëri. parce ñu. parce que man dama ah ñi àndoon ak moom si laa bokkoon. ah da nga àndaloon ak yan at koy fal. bañ koy fal man si laa bokkoon. parce que man ànd naak moom depuis Kolda Ziguinchor Sédhiou Tanaaf. boobu toogagul si nguur gi. ma jóge fi mu fallu man ma jóge fi dem Kédougou doon liggéey si or bi. ah bi nga liggéey. waaw doon liggéey si or bi. nekk noonu Euh, maa ngi woon zone Sabodala bi foofu parce que fii boo nekkee Dakar fii ñoom Sabodala rek li ñu xam. d'accord mais Sabodala am na ay rakk ak ay mag lu ne. ah bon waaw. yaa wax loolu am na Bantoko Bandala Tenkoto Haraxayni yooyu yëpp ay usine la yoo xamante ni ñi ngi ay carrière ñi ngi foofu yoo xamante ni yu génne or la. d'accord léegi léegi par rapport ak situation dëkk bi Macky Sall moom nee na moom fi mu toll nii reporté na élection yi. est-ce que jàpp na war na reporter élection. waaw dafay def lu ko neex rek day def lu ko neex rek parce que nit moom euh, loom nguur lu mu neex neex neex neex neex war nga doyal quoi am na fooy toll foo xam ne war nga doyal am na man tey bu bu mu doon saaga fii si biir dëkk bi di ma saaga ngir maa ngi toog ci benn affaire damay doylu quoi ma daal di jël réew mi ne leen carrément nii la jël leen seen réew quoi parce que samay waajur tamit kenn du ma leen gënal quoi. d'accord kon gis nga ne gars yi population yi dañoo doyal sëkk ci Macky Sall. waay mais ñë liir yi ndaw yi sax dañoo doyal si moom liir yi tuuti yi sax dañoo doyal si Macky Sall. d'accord ñu gis la mhm. jaam la quoi. lu tax nga jaam la. parce que nu mu dundee la quoi. nan la dundee ak ñi. Macky Sall bañ ko fal si réew mi fii nii. mais lu mu lu moom lu lu mu lu mu doon wax Ablaye Wade bu njëkk mais moom loolu lay dund instant bii nii. ok mais fu mu toll nii Macky warul nekk fii si réew mi. ñëw di randal sunu élection lu kenn mësta def si réew mi fii lu kenn mësta def si réew mi Macky loolu la def si réew mi fi mu toll ngay wax ndaw na Sénégal ba ñun Sénégal fu mu toll nii réew yëpp réew Afrique yi ñoo gën a dellu ginnaaw d'accord lan ngay wax ndaw ñi nga xam ne dañuy manifester wu wàcc sur le terrain gis nañ ñu ngi préparé yeneen am na yi war a ñëwaat loolu ci wax waa mais xam nga manifester wu boo gisee ndaw yi di ko def mais réew mi dafa metti Baye Fall réew mi dafa metti metti waay boo xamante ne nii fu mu toll nii mën naa la wax ne ni nii foo de mënti dem ndaw yi boo gisee ñuy manifester wu nii du question ay Ousmane Sonko ak euh, ay du ñoo sonn si waajee dañoo sonn du ñoo sonn si waa parce que waa ji mayuñu jàmm mayuñu salaam dangay ngay tourné booy ñi leen di jàpp di leen dóor ñii ñi leen di tëj ñii ñi leen di gaañ ak lu nekk ñu leen koy def. d'accord ah, kaso yu fees na. mais mais mais tey en tant que jeune. Hmm. Euh, lan ngay wax euh, lan nga leen di conseiller ñoom ndaw ñi. waaye manifeste li ñuy def nii bu ñu teggi suñu tànk chaque jour niñ gën a avancé tànk bàyyiwul duñ bàyyi. wër na yàlla tànk bàyyiwul duñ bàyyi. sa waay fii la soxna soxna si fii la ñëw di ma wax waxu Saint-Valentin ma ne ko soxna si ma ne ko moom ñun taluñu Saint-Valentin réew mu réew mu am problème kenn du lijjanti ay Saint-Valentin wax ñu leneen lu dul Saint-Valentin ñun bagaasu Macky Sall lañ tal waaw ñun moom la ñuy waxal. kon daal fi mu toll nii kon gars yi li ñuy wax dëgg la kon ga kon gars li ñuy wax dëgg mooy que ren dañuy boycotter Saint-Valentin. Saint-Valentin nañ bàyyi ba jëmmi jamono ba beneen président ñëw toog fi mais kii kii kenn ku. kenn du nekk ak moom di Saint-Valentin wala ngay féexal sa xol amul amul man tey ni may gis ni sama soxna ma nga poroxaan man maa ngi fii toog. d'accord waaw ni nga may gis nii Macky moo yàq sama liggéey. Macky Sall nan la yàqee sa liggéey. parce que moo ma moo ma fekk biir Kédougou may liggéey sama liggéey ñaanu ma kenn sarxuma kenn may liggéey sama liggéey yor sama ngandam place mu dem indi ay doomu aadama yoo xamante ni kenn xamul nuñ toll. ñu ñëw basaare sunu alal yëpp yàq di bulldozer yi dégager lépp ñu yàq sunu alal yëpp man tey machine 7000 laa yoroon machine mille waroon nekk milliardaire tey ba ma ñëwee ay sam ay samay mbokku sénégalais ñoo ma jàpp bàyyi maliens yeeg burkinabé yi man ñu jàpp ma téye manoote ma sàcc samay or jël sama jël sama machine 7000 ba pare jël euh, jël ma yóbbu ma tej ma si quinze jours. sàcc la ba pare tëj la 15 jours te loo xamante ne ay yeneen doomu réewu jàmbur ñi ngi ñëw di njëriñoo foofu man may njëriñoo foofu man tamit yor sama machine. kon affaire bi daal foofu la la te métti na trop. dafa métti te et puis yow nga jóge si àll boobu ñëwaat si réew mi di liggéey di daan sa doole si biir réew mi fii ñuy téyati léegi yow place sax boo ñëwee pour louer ko étranger bi moom mooy am place bi yow doomu réew mi doo am place loolu fu ñu ko teg. d'accord ah, merci ñun doomu réew mi ñun duñoo sonn si biir réew mi fii nii ñun duñoo sonn si réew mi fii Macky Sall teg ñu fitna yoo xamante ni et puis dem Macky Sall fan laa ko gën bañ li ma gën a parce que Macky Sall li ma xeex ak moom dama ànd ak moom Kédougou fu nekk dund naa ak moom fu nekk man ak sam benn booy convoyeur bis bi ñuy wax fifty amul lu ñu dundul ak Macky Sall mii ba muy campagne. kon tey daal yow diggante bi mu faloo yow gisoo sa bopp. ba mu toogee si réew mi ba ba tey man ay Qatar rek moom may topp ay problème kii lu ne fii dem naa di louer palace fii sama doole tolul noonu bañ a sàcc bañ a fen dem di louer palace mais xoolal secteur bi fii secteur bi munoo fi am place euh, trois cent mille tey bu yëkkatee benn deux cent mille pour joxe pour euh, am place tey da ngay gis beneen étranger bu jóge ci àll ba ñëw fay place bi quatre cent mille wala cinq cent mille fii nii diggante bi laajal fii rek fii place luñ koy loué fii nii fii ba ay doon bu fële ay quatre cent mille ay cinq cent mille. kon jàpp jàpp nga ne jàpp nga ne jàpp nga ne loolu du yoon location bi ñu yokk. non du question location bi sax mais maanaam nit booy bay da ngay bay sa weewu tànk. d'accord ñu ngi lay jaajëfal. waaw kontaan ci man loolu la lu may wax. sama dernier mot daal Macky Sall na dem bàyyi ñu sunu réew mi sinon ñun ndaw ñi ñu dee de d'accord bul dee ku xiif ku xiif ba sonn yenn sonn yi doo ragal dee. ñu ngi lay na bañ a moytu nag. ay ca bu ngokk di jëfal euh, sa waay li mu wax am na solo mais grand ziar nañ la. waaw ñu ngi leen koy delloo. bàyyeekam taw ñu ngi sant yàlla bu baax. Euh, tur bi nan la. waaw man maa ngi tudd Sidi. Sidi ñu gis ne patriot nga lan ngay wax par rapport ak situation dëkk bi. waa situation dëkk bi moom waa fi mu nekk nii ñëpp xam nañ ni ñëpp xam nañ ni dëkk bi moom dara doxul. Hmm. dara doxul rien ne marche te ñun Macky Sall jiwuñu ko woon lii quoi waaw ndaxte mooy suñu njiit tey lépp lu mën a am si dëkk bi rek moom la ñuy joxoñ baaraam waaw te moom moo waroon yombal affaire yi yombal dund bi pour que pour que sénégalais yi mën a dund en vie en vive respect. d' accord ñu gis ne fi mu toll nii moom si jëm boom euh, reporté na élection yi assemblée nationale tamit dégg ngeen ni ñu jot def seen vote bi yow loo ci wax. loolu lépp pour man xam nga dafa nekk ah luy luy daaneel démocratie la fii nii si Sénégal ndax boo xoolee Sénégal ñun ñoo nekkoon le miroir de l'Afrique maanaam ñëpp si ñun lañ doon xool pour la pour démocratie waaw mais lii mu def nii di di di reporter élection yi. lii man maa ngi koy doog a gis Sénégal. d'accord ñu gis ne ndaw ñi pareeguñu di fas yéene marchat lan nga ci wax. waaw marché bi moom nit ku nekk am nga droit nga génn wane sa sa sa naqar mais dafa am système boo xamante nii aussi ñun woote wuñu pour la violence ñun dañoo woote ñu marche pacifiquement. est-ce que jàpp nga ne patriotes yi ñoom ñooy taal pneu yi ñooy def naka su dul noonu. non non yi non non yi patriotes yi am. ah amul kenn ku mobilisé wu ne na nañ ñëw ñu taal dëkk bi. d'accord mais dañuy gis ne marché yeeg yëpp ak ñiy sàcceeg yooyu lan nga leen di wax ci ñi nga xam ne bokkuñu ci patriote yi. waaw mais xam nga loolu aussi xam nga loolu aussi mënu ma wax parce que dafa am ñuy gàmmu ak ñuy raas dem. d'accord li gàmmu ak ñuy raas dem mooy lan. mooy maanaam dafa am ñoo xamante ni marche moo leen yëkkati. am ñoo xamante ni marche yëkkatiwu leen. d'accord ñi nga xam ne marche moo leen yëkkati lan nga leen di conseillé. li ma leen di sans pour autant ñu ñu tere ñu tere ñeneen ñi dox seen activité. d'accord ñi nga xam ne marche taxul leen jog lan nga leen di wax. waaw waaw ñi nga xam ne marche taxul moom leen jog nag nañ xam ne dëkk bi dëkk bi du ay du ay profité si benn occasion rek pour mën a defaale pour mën a defaale naka su dul noonu. d'accord candidat yi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene euh, jongante bu une une fois ñu ne élection am na lan lan nga leen di wax ñoom. waaw waaw candidat yi aussi man euh, li ma leen di conseiller mooy que. nañu jéem a booloo quoi non non waaw ndax président Macky Sall pour que ñun ñu ñu ñu jëlee ko suñu dëkk day commencé si ñun ñun ñi nga xamante ni nous sommes les opposants waaw ñun képp kuy opposant aussi war nga mën a mobiliser wu nga wax sa coalition ba à ce que ñu mën a guerre bi dans dans le respect et bañ a yàq sëñ bi na nga def. maa ngi rek tur bi la. Ibrahima Tine. Ibrahima Tine noo gisee situation dëkk par rapport ak Macky Sall euh, élection bi mu reporté. ah man ko instant yii damaa jommi. jommi bi ci nan. ah parce que dëkk boo xamante ne gars yi si fitna rek lañ dëkk dëkk bi déggee na déggee boo xamante ne ñu ngi liggéey guddi ñu ngi liggéey bëccëg mënuñu gis lu ñuy liggéey liggéey bi jaree risque la parce que ñu ngi si jagaraay la ñuy jëppandu di xam di jóg di daanu te chaque vendredi gars yi sonal la gars ko encaissé. si encaissé bu demee nan ah parce que dañ lay jàpp day laaj ay 6000 yoo xamante ne doo xam fa la tegu. kon yéen seen jàpp 6000 boobu mu ngi valable ba léegi. mu ngi valable ba léegi vendredi da ngay obligé dem gaar yi parce que da ngay da ngay génn si tali bi doo liggéey 3000 ñu jàpp la bu fay la 6000 ba pare sa moto ba lundi. tey sa moto ba lundi. waaw su nekkoon da su nekkoon da su nekkoon dañ lay jàpp ca nga fay 6000 ñu boy la obligé nga dem garaawul mais dañuy tey sa moto ba lundi nga dem jël si ko. jël yéen depuis suñu jàppee suñu leen jàppee vendredi da ngeen def samedi dimanche ba lundi ngeen doog a jot seen moto. nga doog a jot seen moto ba pare da ngay dem fay 6000 d' accord xam loolu dafa métti. mais lan ngay wax par rapport ak euh, Macky Sall dëkk bi ñu mu taxawee. Macky Sall daal li ma ko ñaan mooy comme que ñu ñoo ko faloon dem nañ ba bëggatuñ ko keneen lañu bëgg a fal comme que moom jeexal na li ma ko ñaan gi rek yonent bi rek mu dimbali ñu ñu abal ñu. mu dem yoonam mu dem. d' accord lan euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo wax sa ne jongante ñi nga xam ne ñoo wax sa ne jongante si élection yi bu nekkee une fois bàyyi nañ ko loolu loolu la ni conseillé waa opposition bi bàyyi comme lan opposition bi opposition bi lan nga leen di conseillé opposition bi maanaam opposition bi ñi nga xam ne ne ñoom si jëm bopp ñoo bëgg ñoo bëgg réew bi ñoo bëgg ut réew bi waaw bëgg remplacer Macky lan nga leen di wax ñu gën a ñu gën a fi ñu teg seen tànk ñu gën koo teg mu dëgër waaw parce que itam nit moom suñu la faloon moo nit comme que ñu la askan ñoo la faloon askan dem na ba bëggatuñ la da ngay dem sa yoon bay ñu xool ki ñu ki ñu choisir ñu suñu bopp mu toogal ñu suñu président. d'accord ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen bu baax. kontaan. ayca sëñ bi def. ça va sëñ bi maa ngi si jàmm sant nañu bu baax. Euh, ñu gis nañ ne fi mu toll nii ñu ngi la fekk si sa buntu place euh, tour bi nekk Ardo collection mais Ardo ñu gis ne ne fi mu toll nii Sénégal kenn dootu la présenté n'est-ce waaw sant yàlla alhamdulilah. Euh, tey nan nga gisee seen liggéey beeg yooyu waaw liggéey bi bon ñu ngi sant yàlla d'une part ñu ngi sant yàlla bu baax. d'accord tey reportage bi dafa constitué wu ci li jëm ci actualité dëkk bi euh, tey euh, lan nga ñu mën a wax ci ci par rapport ak euh, report des élections yi nga xam ne def na ko président Macky Sall. waaw loolu yokk jaxase dëkk bi rek. parce que buñ dee cent personnes quatre-vingt-dix-neuf yi ànduñ ci benn ñoom ba moo ci ànd kon day metti quoi waaw. ñu gis ne fi mu toll nii yéen ñi nga xam ne yéenay nekk di liggéey Sénégal yéen ñi nga xam ne yéenay yor ay marchandises ak yooyu ñu gis ne fi mu toll nii Sénégal lépp taxaw lépp taxaw lépp taxaw lan nga ci wax. waaw impacté na liggéey bi parce que bon liggéey amatul ko franchement. liggéey amatul ñi nga xam ne dañu yor place rawat na ñi nga xam ne dañuy taaba taaba ci mbedd bi aussi. d'accord lan ngay wax par rapport ak li jëm ci jeunesse bi manifestation yi ñuy dënmal ak yooyu. waaw manifestation bi xam nga euh, du affaire de du affaire dara mais affaire gars yi ñoo fépp gars ñoo sonn. Mhm. gars yi parce que on peut dire que on vit dans un avenir incertain dëkk bi wóoratul. ñiy liggéey di am dara sax dañuy jékki-jékki tiit seen bopp massa ñi nga xam ni amuñ dara ci luñ jàpp. dafa métti dafa métti. d'accord métti métti dëkk bi tey euh, ñu gis nañ ne fi mu toll nii euh, opposition bi ñoom tamit ñu ngi fas yéene ñaxtu na carrément élection day am lan nga ci wax. waaw mais xam nga lu ñu programmé ne day am ñu dem ba dernier moment benn taxaw ne du am. Mm. bon boobaa moom il faut gars yi il faut gars yi defante. d' accord les les ñi nga xam ne dañ leen arrêté ñu doon ay ay ñi nga xam ne tamit ci ay manifestants ñu arrêté tëj leen ci kaso kenn wax gu si ñoom loo ci wax. waaw man moom di masawu détenu politique yi ak euh, ñi nga xamante ni dañ leen a jàpp ci nga xamante ni bokkuñ ci manifestation dañ doon romb par hasard. waaw ndogal dal seen kaw di leen masaw di ñaan yàlla suñu borom teggi leen nattu boobu. d' accord ban ban lan ngay lan ngay lan ban réaction ngay wax par rapport ak Sénégal lan nga leen di conseil waaw li ma leen di conseil daal mooy euh, ku nekk euh, nga vigilant ci li nga nekk nga vigilant te nga moytu parce que jamono bi dafa wóor boo xoolee ñi ci jot a ñàkk seen bakkan ñëpp ay innocent lañ bokk ñu woon ci manifestation yi comme li ñuy wax rek ay du yem ci bopp borom kon nag moytu rek. d'accord ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf jëmbal kontaan jaajëf jaajëf.